salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi awuskiti xamoon na ne bis bii dina ko am pareegu ma de moom Aïssa moo ko hébergé woon ay Aïssa li tax mu génne woon awuskiti parce que awus da daan ñaq di tooy day kattante bu ñëwee këram dafay tëdd vidéo yi mu tëdd mi ngi fi naa leen ko dugalal day tëdd ñaq tooy daa 30 minutes bu dugg si kër gi pour nelaw 30 minutes dañ koy woowaat téléphone mu dem liggéeyi jaayati data bi sa génnee ko ne ko mënoo dugg ci kër gi parce que sama yére mënoo ko sol ndax feebar yi dafa bëri salon bi mu doon liggéeyee benn égyptienne dafa bàyyi ba ñëpp génn mu génnee fa ay góor nekk caméra ngi koy gis pour di kattante ci biir salon bi ñu dàq ko damay ñëw ci ojo yi benn par benn après indil leen yaayam li tas sëyam parce que yaayam da doon pap da doon kattante keneen papaam metti leen moom it fase ko li ko dal dafa métti léegi ñu déglu audio yi ak sénégalais yi muy xas naan sénégalais daa mën a fen sénégalais kan la te mooy dulkat bu mag bi sama lépp preuve la pare ñu ngi koy waaj a delloo ma ñëw ci audio yi déglu leen bu baax moom dafa demoon kattante ji moom Awoush Kity dafa demoon kattante ji ñëw xulloog far bi loolu tamit mi ngi ci audio yi déglu leen bu baax nan ko commencé ci kaw aja ñu déglu ñu déglu yi depuis démb dama amoon empêchement ma doon xuloo kii dama du may bi ñuy wax de may woon si douche bi dama génn rek fekk ko mu ñëw te dañoo xuloo woon démb xaaral ma def vocal bi. duñu juboo duñu bàyyante xam nga ne man ak salon kii la rek eh, dañuy dañuy dañuy duñu juboo duñu bàyyante ya mënuñoo bàyyante two hundred la un mois lay def ñëwal ñëwal Ajman nga def nga def non ñibbi na c'est sama copain bi dafa nekkoon a vingt kilomètres moom moo may jël si saa yi ñëwee Dera léegi ba bëggoon ñëw sa euh, vite fait ñu wax wax avant ñëw. kii nii moo ko doon fat këram moo ko doon fat këram léegi ñu déglu. ngeen euh, commencé ngeen wala. ba bëriwul noonu rek fan la dafa sori ana caabi bi. def nga ko fi nga waxoon wala. caabi kër gi la koy laaj pour mu def ko fi mu nekkoon pour mu mën faa fanaan. ay maa ngi nii di ñëw sa kër euh, waxal kooku mu indi euh, ceeb maa ngi nii di jël oto di ñëw. bu dee lay jël bu dee lekk ceeb taxi lay jël mu ne moom yor na ñetti oto pour mu bàyyil ko ceeb bi. dinaa jéem a demander kii day off ci jouru it bi. pour mën a ñëw Dubaï mooy loolu. iddi bi pour dem Dubaï këram lekk ji yàpp kër ñoom sax ma ñëw ci audio yi muy xasee sénégalais yi.